al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bi ñu ñëw euh, ci tuuti xam ngeen ni daal Daaru Muxti dund bu am solo la dund bu bari njariñ la ndax lépp da ko jeexal ci jaamu yàlla ak liggéey Sëriñ Tuubaa dund bu fees dell ak ay xikma dund ko fees dell ak njàmbaar dund ko fees dell ak xam-xam dund ko fees dell ak jom ak lépp loo xam ni loolu mën a la ci moom ci jikko ju baax jikko ju rafet lépp dafa daje ci dundam googu kon sëñ Ahmadou jox la kàddu gi rek nga defal ñu ab tënk ci dundu borom Daaru Muxti. waaw ah, jërëjëf sëñ Maam Thierno. borom Daaru Muxti day eh, jëmm la joo xam ni eh, kenn la ci nit yàlla yi doonoon eh, kenn itam ci sëriñ Tuubaa doonoon loxol ndeyjooram sëriñ bi tudde ko sama loxol ndeyjoor ida ataaka adudi kitaabi fa karrimil kitaaba bil mataabi loolu ginnaaw bi laaj nañ ko sëñ bi mu ne adudi borom Daaru la ci jublu mooy loxol ndeyjooram yàlla dogal naka jekk mu mas di takkook sëriñ bi mosula teqalikoog moom sëriñ bi ci moom seeral na ko ne lam yu xaalif ni fi sigarihi wala fi kibarihi maa ne mosula juyoog moom ci lenn euh, doon itam mbokkum sëriñ bi ndax ñoo bokk wenn waajur muy sëriñ Mamour Anta Sali mu feeñe fële ca Poroxaan waaye jamono yi feeñ tom tombeek euh, xeex yoo xam ni mi ngi doxoon diggante euh, Maba Jaxu Ba ak euh, force colonialiste coloniale yi fi nekkoon yàlla dogal moo tax mel na ne wax nañ ne ci Njaaba Kunda foofee lañ ko joxe aw tur sëñ Mamour Anta Sali mi ko tuddee xaritam di jëmm ju baax di Cheikh Ibrahima Alfouti Cheikh Ibrahima Kan Alfouti lañ ko tuddee Cheikh Ibrahima Kan moomu ci nit yàlla yu mag yi la bokk bokk na ci moom moo yeesalal maanaam yeesalal na Mamour Anta Sali wirdul Qadir Mahmoud Amsali Abdul Qadir mi ngi ko njëkk jële ci eh, Sàmba Tukulóor Ka waaye nag Cheikh Ibrahima Fouti mi moo koy moo koy yeesalal eh, borom Daarul nag mi ngi feeñ ci fukki fan ak juróom ci weeru gàmmo ci weeru la feeñ loolu mooy li date bi nga xam ne ci la mag ñi ñëpp dëppoo Euh, muy jëmm joo xam ne itam ni ma ko waxee dafa yàgg a taqoog sëriñ bi mosula teqalikoog moom mosula teqalikoog moom ci ndawam bi mu nekkee magit noonu loolu sëñ Tuubaa moo ko seeral lam yu xaalif ni fi sigarihi wala fi kibarihi moo tax sëñ Moussa Ka di wax ne Bàmbaa ko yor yar ko ci waxtu ci waxtu sigari te mosula tàggoog moom li waxtul kibari njàngum alxuraanam li ci ëpp sëñ Tuubaa moo ko jàngal menn at rek la wax ne moom la génn ci loxoom te loolo sëñ daara boo xam ne moom la ñuy wax sëriñ ñang yaakaar naa moom la ko Mamour Anta Sali jébbaloon mook maam Cheikh Anta waaye menn at lañ fa def nga ne li ci des lépp sëñ bee ko jàngal ba mokkal alxuraan xam-xamam itam li ci ëpp sëñ Tuubaa ko ko jàngal ba des ñaari at rek itam la ko génn ay loxoom menn at mi mooy ba mu defee fële ci njaxate ca sëñ Mor Birama Jaxate di loo xam ne lu siiw la meneen at mi mooy ca Xaadima Jaxate ka la ko yebaloon waaye lu dul ñaari at yooyu li ci lépp sëñ Tuubaa la ko jànge am njàngam itam e, maanaam diiru ca njëlbeen itam ku ne xam na maanaam taqoo gum taqoo nag sëriñ bi li mu saa wax ne buy dem mu yor satalaga ak deram ba ak téere ba ak daaje di saf laram ba lar mooy ab ak jaam nga xam ne mu jëm rek mu takku moom gis ba muy dem ci xaas Camara moom la àndaloon ak sëñ Dame Abdourahmane Lo bi muy dem itam ci sëñ Demba Fall ca Pire loolu sëñ Basiru nettali na ko ci Minane Baaxil Xadim ne booba moom ñoom ñaar ñoo àndoon ak Mamour Anta Sali bi ñuy wuti itam téere yooyu Fatxul Aqfal ak Rawdul Fayaq te naar bi lebaloon ko sëriñ bi loolu itam moo sëriñ ma borom dara moo te ñoo àndoon ak sëñ ma sàmba Diop Sam maanaam li ma bëgg wax mooy njëlbeen ko moom daa taxawoon ak moom tax goo xam daanaka fu mu jëm rek yóbbaale ko muy ko seddal la koo xam ni euh, benn bëgg gi sëriñ bi bëggu sell la goo xam ni daray àdduna mosu ko lal parce que séentu itam ci ànd gi mu ànd ak moom ndax moom ba muy ànd ak sëriñ booba yoonu murid wi taxawagul booba sëñ bi wooteegul moom daa feeñ rek Mamour Anta Sali jébbal ko sëriñ bi nga xam ne euh, moom bu sëñ bi mujjutoon fii mu mujj itam ab taalibeem lay doon waaw ndax li ko lëkkaleek moom mooy waajuram moo ko jëbal ba mu feeñee rek lu ko jëbal mi ngoog moo tax euh, mm, mm, ànd gi mu ànd nag moom di ànd gu sell goo xam ne yàlla rek a tax bi sëñ bi demee ci géej gi itam gis njaboot gi moom la ko dénk mu def ca kem kàttanam def ca mm, mboolem la man ak la manut bi sëñ bi ñëwee itam sant yam ko sant ak la ci xaw lépp ku ne xam na ko euh, ba tey euh, maanaam gis nañ rek masalan bi sëñ bi nekkee ci géej gi buñ seetloo euh, am na jamono yoo xam ne metti woon na lool ndax sëñ seetlu Mbàkke mu baax mi daana wax te wax na ko sëñ xalil mi nga xam ne sëñ xalil mu sëñ saab sa bind na ko ci téeréem boobu sax mu tudde góor yàlla gi wax na sëñ wax na ko ne ko am na at moo xam ne moom njabootu sëñ bi cim sàq lañ fanaan loolu booba lépp ngir sàmm rek eh, eh, maanaam ndénkaaneel sëñ bi ak bañ dara laatu ci moo tax sëñ Moussa Ka wax ne boobee ba tey maam Thierno Ibra Faati mosula tàggoog Bàmba te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Cerno Faati faj ko mboolem lu ko sëñ bi mës a digal itam def na ko nam ko nam ko digalee sëñ bi ko digaloon am njàng waaye loolu it gis nañ mu def ca kem kattanam waaw ku bari war xam te loolu mën na ko xamee ci ñi nga xam ne ñoom la jàngal eh, nga xam ne boo seetloo yoon wi ci gàttal rek Euh, lu dul ñu njëkk ñi nga xam ne ñoo njëkk jàng ci sëñ bi daanaka kuñ ci wax am njàngam da gis ne jaar na ci moom jaar ci tàmbali sëñ Mourou Moustapha sëñ Fallou ñëpp gis nga jaar nañ ci ay loxoom mu jàngal leen euh, ak ñeneen ak ñeneen ñu bare bari sëñ Mokhtar Bintaloo ak euh, sëñ Lampum Njàmbur ak ñeneen ak ñeneen ñeneen mi ngoog moo tax yàlla dafa da ko defaloon barke ci njàngale mi ndax sëñ beeku ko digaloon gis naa lettre boo xam ne sëñ bi da ko wax ne ko boo defee say lawraat ba noppi maanaam boo boo defee say farata ba noppi léegi maanaam sa say say jaamu yàlla ci ëpp na doon jàngale nga xam ne boobu moom wëddute woon ci moom wax li sëñ bi ko joxoon mi eh, dëkk bi itam diiru mu fi ne itam diiru muy man moo daa jàngale ba demee ba mënatul itam ci la samp ñoo xam ne ñoo koy jàngaleel ci dëkk bi ay daare xam-xam ak ay daare alxuraan te loolu da ci jublu firndeele ko ndigalu sëriñ boobe yàlla dogal nag amul lu ñuy wax bayiwu fi ndonol mbind ndax moom daa seeyaloon da nga am léppam ci sëriñ bi rek li sëriñ bi bind loolu la doyloo ba mën nañ ne bindut fi liñ ko nettali ci way ak ay mbind yu néew a néew la mooy dongaam ya ca fetto bi nga xamee ne jàppante nañoo sàmm si ba am ñuñ ca ci dongo yi defal na leen ab marché bu gàtt ko tamle ci yaa rabbana ji li ahli fettu ajmaahim an naa ko yoorun tafuuqu zanna wal amala eh, ñeenti bayit la yaakaar na wala juróom yoo xam ne da leen ci ñaanal yàlla ñaanal yàlla eh, maanaam yërëm leen dool leen sutura fay leen gën ji fay ndax dañ doon liggéeyal sëriñ bi ba ba daanu mi ngoog Euh, ak euh, bayit yoo xam ne da ko wax ci sëñ Mamour Diarra gis nañ ko ak itam yenn bayit yoo xam ne sëñ Mamour Koso moo ko mos a nettali yoo xam ne tam ci wéradéem yi mujj ci la ko waxoon wax ne yaa rahmaanu ya allah yaa man jalla naxsha fakun awni ala daa in bara jismi wa adnaahu daa ne bayiti ak dellu ci suñu borom ak ñaan njéggalu suñu borom tabaraka wa taala ilahi la tuaxidna bi zambin qad janayna ubaydan za jawan warham lahu faghfir xataaya كثيرا يشتكي حوبا إليك اسمع شكاياه لما قد حزت من فضل غدا يهديك دعوة bayit yu am solo ci toroxlul suñu borom ak jéglu ko ak ñaan ko njéggalam te moom kat bi mu koy wax ni fekk na booba sëñ bi ci moom bindal ko boppam ne ko yàlla gërëm na la te loolu mi ngi ci lettre boo xam ne ñëpp gis nañ ko ne ko mata taqaw aynuka mooy lettre bi tàmbalee foofu xamal ko ne ko na nga xam ne suñu borom gërëm na la ngërëm loo xam ne dama la koy jotle rek te teewul taxul mu naagu mukk ko ragal yàlla la woon euh, bokk na ci itam lim gën a ràññikoo moom borom daal moo mooy ku euh, ku yàlla la yàlla moom sëñ bee ko ko digaloon waaye loolu it mosu koo euh, maanaam am gennuk eh, woyfal gum ci def dëkk bii nii nekk na fi juróom-ñett fukki at yoo xam ni maanaam dund na rek lim dund bokk mat na juróom-ñett fukki at yoo xam ni mosula tiim lu may ñaari yoon te lu ci ne ba amee ndox fay na ko te loolu sax xëy na tiim moom xam nga ko digle loolu moom jëru nga koy fayaat waaye ne wax nañ ne ba amee ba mu amee ndox fay na ko <laughs> te dëkk bii ñu ne nii jamono yi mu koy sanc booba ñàkkum ndox mi foo ko takk rek weesu na ko fi ne nit tëdd na fi ci wetti ndeyam di jàmmatu mar ba sedd guy ngir ñàkku ñàkk ndox te taxul mu nangu booba moom ci waxuma la tiim waaye jàkka ji rek dawul nangu ko fi dugg te jàpp waaw noonu la meloon mosula tiim ci dundam eh, am na kenn ci ay taalibe bi ko ñu wax sëñ Mor Anta Sil sëñ Bachir Anta ñangi ci téere bi mu def ci Cheikh Cheikh Ibrahima Fati Cheikh Ibrahima fi ay wax na ne mason si borom dar da ko gis muy tiim nee bi muy tiim mu laaj ko du la tee tiim mu ne ko mu wax ko wéradi yu nekk ci yaramam mu ne ko loolu pexam seetaan rek del jàpp waaye yàlla dogal ba muy jàpp mu mujj yàlla jaare ca génneel ko dàqal ko mboolem xeeti wéradi yooyu nga xam ne moom doon jàmbat jàkk ji itam moo ko daa jiite te musta julle itam ci lu jàkk jàkk ji laa jóge jàkka itam di diirub mu fi ne itam moo gënoon moo gënoon a taaru ci dëkk bi ndax da ko daa senge waaw eh, biiru ak julleem itam wax na ne moom da daa ànd ak teewlu goo xam ne mosi fu ko gàggante fi ne eh, da daan naafila fi ne la daan naafila fi ne bi seet moom sulusul quran la daa jàng seen bu xulus loolu la daa wax ñaar fukki isim la daa jàng nga xam ñetti fan yu ne mu mu wàcceb kaamil loolu moom suñ bee leen ko digaloon eh, waaye kaamil boobu bukkut ak bi muy naafila itam waaye ak naafilaam itam weeru koor dalaa wutal jigéen ñi boo demee am na lu ñuy wax mawlut mawlut bi itam lépp xëy na bu yaatu yaatoon danañ ci ñëw sëñ bee ko ko digaloon mooy ay bis bu ne mu màggal guddik rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu fi ne nii ci dëkk bi dañ ko wutal bërëb boo xam ne moom la ñuy wax mawlut mawlut boobu nag ba léegi ñu ngi koy def waaye foofee nag foo la fa la daa wutal imaam joo xam ne jigéen ñi fa lañ lay jullee ci koor gi moom nag mu sàkk ñeneen ñoo xam ne ñoo ci jumaa ji waaye moom it alxuraan la daan nafila guddi gu ne moom loolu mu daw ko def koor ak ludul koor la ci la ci yemaloon waaye ak julleem sëñ Moussa ko misaal ci ne mëseefu koo gàgganti mëseefu koo sàbbaal du juum du fàtte du la jamaj nga xam ne eh, teewlu gu mat sëkk la ci eh, da ko saxaloon maanaam guddi gi da ko da ko daal dundal loolu lu mu saxaloon loolu gis nañ xawaa fadla tilawati ma qiyaami ila fadla jihaadi maa ribaati moom la Cheikh Ibrahima Diop Machar yi waxoon muy jëmm joo xam ni gàttal gi mooy nit la koo xam ne mosula mooy yàlla lam yaa fatan lam yaxsi amrallahi yowman walam yasluk si waa qasdi siraati ba ci mooy yàlla yu seel yii nii ay jëw ak yooyu yëpp daw daw ko def sëñ Moussa Ka wax na du tudd nit fu mu newul du boddi du jëw du jëwloo ñafa moom du ngàdde mu ngoog kon kooku mooy Cheikh Ibrahima Fati di ko fonkoon nag liggéey di ko fonkoon liggéey ndax danaa wax ne suur na ciy dëkk ci asgor lu ko waay jënd rek jar na ko daa mas dem fenn ànd ak sëñ mu daw ball di ñëwee nee na fekk boobu am miraas lañ demoon sax bañ ñëwee nag xewlu wuñ bu ñëwee nag ñu defaral leen eh, ñu xewlu ba noppi fii ba mu fi ne diiru bu fi ne ab gàtt lañ daa rey mm, njaboot gépp ci lañ xewlu yàlla dogal nag bañ ko rayee rayalee ab gàtt ba mbooloo mi lu ba noppi mooy leen daal bu ngeen gisee ma nangoo liggéey te duma yàq lii rekk la mooy suur naa duy dëgg ci asgor lu ko waay jënd rek jar na ko maanaam asgor wërta bàyyi boppam kenn di ko gàddul leneen moom daw loolu mosu ko nangu ñu foo gisee fii toolam yi ñeent fukki kilomètres la quarante kilomètres carré yoo xam ni ca jamono moom daana ak mbooy daw fi am daanaka ndax fu ci ne teg na fa bërëb gisee mag ñi mu àndal fu ci sëñ Paate Jeng wax na ne ñeent fukki kilomètre yu wër ñeent fukki kilomètre yu wër la Ceerno tooloo maa ko wër waaw euh, quarante kilomètres dem ay dàggaaki sàq lañ ko la def yoo xam ni euh, moom kenn xamul sëñ bi xool daana wax ne ñaari lettre dikkal na ko yoo xam ne yombut nga gis kum kum keneen ko yombut amaat mm. te mooy tubaab bi bind nañ ko lettre di sàkk ci moom ab dund mm. rawatina ginnaaw xeexam guerre mondiale bi ak prisonniers yi nga xam dañ leen jàppoon fii ci Louga te am ñu luñ dundee waaye Sëñ Tuubaa itam bind na ko lettre boo xam ni da ko ne kër gi eh, dañoo bëgg maanaam bëgg nga indi fi ab dafa manqué dund loolu Sëñ Abdou Khoudoss wax ne ñaari lettre yoo xam ne dikkal na ko te yombul nga gis ku ko la dikkal moom nag lim daal liggéey itam lépp fàggoo ko sëriñ bi rek la moom moom moom la ko la def ñi ko ñi ko daal liggéey itam dawul nangu fi ñu wax ne mag ñi sëñ Basanta ñu am na kum ci defal eh, waxtaan wu yaatu ci biir téeram bi yaakaar na sëñ Paate Sall sëñ Paate Sall la moom nee na sëñ bi ñoom la wax ne liñ daal liggéey liñ daal liggéey ci biir daari borom daal moo ti mooy sëñ bi da leen wax ne foo waxtu julli jotee li ngeen def lépp na ngeen ko bàyyi dem julli ji ba noppi bu leen julli itam te te jàpp leen bis bu ne itam li ngeen war a jàng ci alxuraan dañ daa jàng alxuraan bu ñu wàccee itam di jàng xasida waaye njël moom dañuy teel a jóg loolu dem ca tool ya waaye duñ taxali comme njàpp itam waaw nga xam ne bu ñëwee bëcc ngoon gi itam njël benn guddi gi bu guddi gi soree ñu noppalu tuuti balaa njële ñu tàmbali ñu jugaat dellu ca dellu tool ya loolu nag ndax liggéey bi mu daal liggéeyal dañ ko daal yóbbu ci sëñ ba moo tax mu daa bëgg lépp solo lépp lépp sell wax na ne am na jamono yoo xam ne ay gudd lañ leen wutal yoo xam ni woo xam ne dañuy wax da leen wax ne fu ku ci am njàppam toj rek nga jàppaat mos la ndongo itam ndaw loo xam ni eh, day am kattan mën a liggéey ba pare toog ñàkk liggéey loolu mos ko nangoom bu daa séddale dara rek ci jotaayam day wax ne jox ñuy xolli gerte ñee def naa nga waaye ñi nga xam ne ñoo toog defuñu dara ñoom lay mujj jox moom mag ñi sax buñ mësaa toog fi wetam ku ci eh, defuñu dara dañu jox ay biteel ñuy tànn melentaan yi di ci def ndax bëggul ko toog loxo kese moom mosu ko nangu lool am nañ kuñ ko mës a indil ne ko mu ñaanal ko mu laaj lu ko dal ñu ne ko doon jëfandikoo ay turu yàlla xam naa ba ak yëf xam naa xam naa <laughs> mën naa bañ a doon turu yàlla mën na nekk turu jinne sax waaye lu mën a xam mu ne leen kii du ma ko ñaanal ndax yow ponkal mu toll nii man a liggéey liggéey boo naa nekk di def ba yi dal moo tax ko fonkoon liggéey la te bëgguloon itam ku yaafus jërëjëf si bi Ahmad yaakaar naa leer nga ñu tënkal nga ñu dunduk borom Daaru Muxti ci loolu gàtt loo xam ni yi ngi ci tudd yëpp lu ci ne rek mënoon nañ mënoon nañ cee taxaw waxtaan ci eh, te du ndax njëriñ yi xam ne làmb na ko eh, ndax royteef bi mu doon ci wàll yëpp eh, kon ñoo ngi sant bu baax naan ñoom lu doy loo ci am rek daal doy kon dañ lay delloo kàddu gi waaw ah, jërë ngeen ñëpp mbokk yi di siyaar ñëpp rek di ñaan yàlla weer wi itam li ci ne ci ay taw tawféex ak i xéewal yëpp yàlla ah, dajale nag moom boole ñoom mboole ñi nga xam ne ñoo ci gën a jëriñu ci daraja sëriñ bi di sant baax nag suñ maam Thierno di ñaan yàlla mu gën leen a defal taw feex ci liggéey bi ndax liggéey bii ngeen liggéey bu am solo la te murit yëpp ngeen koy liggéeyal. yéen ñu ci wutu itam ci ñëpp ñi ci waroon taxaw yéen leen ci wutu doo ñaan yàlla dëgëral leen ci te def leen ci tawfeex te may leen ci lu kaw seen njort dara ci sëriñ bi. jërëjëf sëriñ Amady ñoo di la sant di ñaan yàlla yàggal fi lool te mu ànd ak wér liggéey bi nga bëgg a daal moxti lépp yàlla defal la ci tawfeex. ba nga def ci lu kawe sa jort ñu leen sant bu baax itam yéen ñi nga xam ne yéen ngi doon bàyyi xel académie bi nag waxtaan wi am solo wi nga xam ne àndoon nañ ko ak Serigne Ahmadou Mbacké mu jëm ci weeru saxbaan bi ak lenn ci dunduk borom Daaru Muxti ñu dellu rek di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi toog toogee jotaayu Serigne Touba yàlla bàyyi ko fi te mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéeneem yi mu am yépp itam yàlla defal ko tawfiix ba mu àggale ko te lépp yàlla defal na tawfiix